dafa wëlbati bu jël ay mbiram yëpp jébbal ko yàlla tey moom la ñuy def nit yàlla yi nga dégg ñu yor tariixa fu nekk tàggat nga bayit boo xam ne dañ ko jël wëlbati lépp jox ko yàlla kon ñoom du dara kon suñu borom mooy lépp biñ ko tàmbalee ci Seydina Limaamu lii yàlla ñu dafa ne sax allahumma najjinaa maa naj moom mii nga xam ni wax nañ ko ca daayira meer laay te ki fii wane yoon bi moo tax waaye xam na ni moom bu ko yàgg seytaane du dem moom Seydina buñ ko complexe wax suñu borom buñ ko sëy ba taxaw rek ñoom dafay jàpp mafay day lii ngeen di gis ñaan jii mu leen jox moom la yor nee na ko tabaarakta wa taalayta yaa zal jalaali wal ikram ne nasru nag min allahi wa fatun xarib loo ko moom Seydina Ali kon nga xam ne yàlla yéen moom mii bu demee ba loolu mu jël ko delloo ko boromam xam na ni mooy lépp mooy lépp. moo tax bu jugee di wax ni moom Seydina Limaamu ci la ñu yar yar bu toy ni xamee nañu ne moom jaam la yàllaay borom di ko saa su di ko sante suñu borom bi ñu bokkul ci wala nekkuñu ay dof banaan bàyyi lay yàlla moom teel nañoo wax bi boo déggee matlabu sifaa bii daf ko jël tënk ko delloo yëpp yàlla da yàlla ci boppam moo mën a saafara damay bañ a jël temps ci loolu lépp bañ a demee ci moom El Hadj Malick noonu la def soo demee ci Taysiir di nga ko fa fekk ashku ilallaahi xaaja mu ne laysa yarfa siwaaka yaa rabbana yàlla na ko yàlla tawat yi moom ak yooyu mbir daal moom dana koy delloo rek yow yàlla wax nga ci dara aal yéeg yëpp tawat yi mu ne ko yow suñu yaram amu ko assurance. Bamba sax wax na ci beneen téere mu ne maa lii xatan yow ma xas leen fàtte mu ne na ci ful si waa Maodo daal mu a ba yawmal xiyaam soo demee ci euh, taxribal asraar yi ko fekk maam na ba yawmal xiyaam maa li adam yow ma xasul xam bés bu yàlla di dekkal jàmm xaw ma fa dara man ma fa dara lu ma fa mu ne si waa raful latif moom laa yëg lu dul nga xam ni moo am ak ñeewante te yërëm ñu moom bi nga xam ne moom moom lépp ku dox sa digal sa mu ngi lay dox ñoom ñii ñu yaakaar sax joxoñ nañu sunu borom xam ni mooy def ma ne ñoom ñii ñu yaakaar kon kay sunu borom mooy def xanaa kon danañ ko nangu ne borom bi mooy ñun ñu xam ne moom la ne mënuñu dara amuñu dara jébbal nañ ko lépp masama ak ñi topp ci ginnaaw kon boobu ba léegi ñu naan naan yàlla mooy lépp kon mooy lépp mooy lépp ndax ñii malaw li ma lépp ay nit yàlla yëpp ñu ngi ci biir suuf te foofu ñu nekk ci biir suuf bu leen fi yàlla fekkul du fa jóg man moo yëg kii ñu fekk ku ne fañ la rob bu yàlla ñëwul doo ñëw Jésus kon lan la kon lan lañu boo xam ne mënoo kaa jombale dee war nga kaa jombale mu nekk yàlla comme dee man man ñoom mënoo ne sëñ bi dee na wala yeneen kon bu ko jombale ka ne yàlla te wallahi fii ñu leen dugal ñoom ñëpp ci yàlla yëngu mën a ñëw ngir bañ dafay dugal mënoo faa yóbbu sa bopp nit ñi la. waaye yàlla mooy def suñu borom mooy def yàlla maanaam mooy bu duram woon bu lay rii ba ngeen yàlla maa te mooy daal turam moo lay riir sa sa mooy lee boo maa ko mooy buur dafa ne loolu day riir mu ko di wax wallahi dafa war taasu la ñu koy wax wallahi turam moo lay ba seen xol sa ngooy leer magan daw ñaan yàlla ci yàlla fay di mucc ci yàqkat bi yàlla ci yàlla tënkal bu mu yem rek ci weeru koor ni mu ñu ko tënkal ba suñuy cër ko yàq jëm ci jaamu yàlla ñu ngi ñaan mu tënkal ñu ko noonu di des suñu koor gi moom tënkal ko ah ba macha allah man nañoo dem ak a ñëw góorgóorlu ci jaamu yàlla na wóy ba keroog ñuy dugg biir suuf ku xool weeru koor xool lu dul weeru koor xam ne iblis yàqal na ngir li ngay def ci weeru koor moo la war bu dul koor waaye iblis dox na ci diggante bi ba bu doon téeméer la juróom fukk yi sax na waaye bi weeru koor ñëwee gis nga sa borom nit la dimbalee ba fi nga toll macha allah kon yàlla nañu ko tënkal. ginnaaw weeru koor keroog ñu daje ko ñu ngi ñaan am na ñu fi dëkkoon ci ay kilifa ba ca Maam Alassane yàlla yokk seeni la jël nga wax ko Cheikh Issa mm-hmm. man de xaw ma parce mm-hmm. que ko gis mm-hmm. ndax yëpp dégg nañ déggin boo xam ne neex naa tiitaroo mm-hmm. te beneen bi mooy moom Cheikh Issa nee na gis na tàmpe Mouhamadou Rasulullah ci bàqam Seydina te fii naka gis si jàmmalay ko mm-hmm. di ñaanal waaye bisu tey bii daan la tombé ku daan ñaanal mm-hmm. noonu la nar dem xaalis ba boo génnee di nga ñaanal ñu koy ñaanalaat moom itam ci bés bi dem nañ ci Paris leer nañ ko le 10 juin bi di ko ci ñaanal saa su nekk wax dëgg yàlla dañ ko dalee di ñaanal ba léegi daanaka 17 ans ngi nii lii mooy 18e année kon ñu ngi yeesalaat ñaan bi rek di ko ñaanal yàlla dañ ko daan ñaanal rek tànn ko yàlla nangu ko dem waaye des di ñaanal

lii moom du deñ oote bii moom laaj du deñ ginnaaw ba mu waroon gañe moom wees na waaye day am laaj uyu ku la oow uyu ku la oow bañ a uyu ku la oow waaye laaj waa yoo ñii ñu topp yëpp kenn dañ leen gis ñu mbedd mi ñu dox rek topp ci am ku taxaw ku ñu leen oo maanaam kuy ku la oowul dañ di tënk pour ki la ko mbir mi dafa am lu muy moom a jaaxal moom lay def bi boppale yii mi la toog waaw boo ñëwee mu ne la oowul ma la hmm? sama gisul ku mel ni maam بمولاي تدكما wax ni ñii ngeen toppatu ñoom man mii la yàlla yónni ci yéen topp mbedd bi dox rek nga topp ki taxaw di la tàpp ku ne wala ñetteel bi xaw nañu mu baale wax na ngeen xelu seetaat seeni xam-xam limaamul max bi moo woote woon de tey dem na ca yàlla ku la ah, damay toog di ko jàmbar xool dëkk bi ngir yi fi nekk tariixa yi fi nekk ni gars yi demee utiwee te kenn oowu leen amul benn sëriñ bu fi taxawoon ñoom ñooy mujj wëlbati di jiiñ sëriñ bi. pour nag daal di koy couleur seen réer boobu. naan noo sëñ bi lii sëñ bi lii sëñ bi lay te wallaahi sëñ bi am na génn mën naa wax. amul benn sëriñ bi fi dox ci réew nekk moom. ça va. déedéet. waaw lii réew mi. ah fii nga xam ni gars yi ni ñu mën a wax ah nga xamante ni nit ñi sax wax rek la bëgg moom mosee ba am nangam xaw dina ko kenn maanaam def ko ay mbir ba nangam ak nangam am na loo xam ne bu ko ñeme woon ko xam nga sama doo bàyyi gaal bi la ko wax. dëgg la. Aliou borom waxoon nañu ko ñoo bind bind nañu ko te leer na ñoom ñëpp nag laa wax amul ma sàmba amul ma dem ñëpp laa wax yow nag nga jóg topp ku la oowul bàyyi ci la wax. làqoo ku dul sa bopp làqoo ku dul sa bopp te réew mi looloo fi am rey sa bopp beneen bi laaj la ba tey kii sanga bi xabba zaati du suurati wa faxaari anta fii yatimatul asma ah, bàyyi lay ndax nee ma tiitaroo yéen waa yow ñu dafa bàyyi bu keneen ndax nee ma tiitaroo nañ dem ci jëmm ji moo ci gën a rafet moom rek ni nga tiitaroo koo xam ni walaw laa talaa xan fii mulki ilaatina jalaa xatruhu fii kaa'inaati muhammad lii nga fii gis sax moo tax aw sama bi maam mii ngay defal moom rek la neex a tiitu jëmm ji la ko waj woon دور مثل بدر مدور وجبين له يلمح مثل برح وسط حتى وعنف له في الوجه lakin موسط له بهجة سامي وفاخ بنا yàlla bakkee dina benn weer bi doog a fay ñu koy gis ci asamaan si la la ci ñeeloon na ko moom Seydina Limaamu njariñ ñu nekk ci dënnam wa fii sadrihi kanzul ma'aarifin naasir ñeeloon na Seydina Limaamu personnalité boo xamante ni ku bàyyi lay toogal nga ñàkk personnalité wa fii jaarihi taw yi ma aali ma sa kii nekkul di habaza ifu suunati wa faxaari ñi ko jur sax ñu ngi koy diisoo maa maam ko mu doy ñi ko jur ay doomam koy tiitaroo maam sëy yow mi ka fi bàyyi andi koo mën a teg yoon sëy naa man sax mën naa concours ak yow wallahi xëy na bépp ya, koo xam ne taalib yi kalau sikkin àndahum ala martabatin min akabiril axdaam taalib yi ñooy sikkin bu dee wàll yi ñoom bu dee xutba nga loo mën a doon sa kilifaam kii ñoom ñoom di jaay jaay waaw nga sa tarixa ni ni di jaay waaw waaw man téere laa te dama xam ba antum ala martabatin la wax min akabiril aqdar loo doon foo ko doonee noo ko doonee ñun suñu kilifa mu ngi fii ci raay di jaar xëy na man nekk na sax lu xam man la doon wan gaa waaw waxuma ko mag ñi wax nañ ko ne certifié nañ ko tàmpee nañu ko wax ñu laay ñoom la ñu jox meeti may ñoo am ngëneel képp kuy sàkkoo di xéewal jàpp leen ñoo am da ngay jàpp bàyyi ko te jàpp ñi ñoo am xam ne ñii ulul bir bi wa taqwa wa amru fadaili incha allah di ci baaxee wa xayri wa naat waaju leen benn doo danay am ndam ëllëg yow mal xiyaam waaju leen bañ Vamos a Sibéen. bàyyi leen yéem la wax yéen ñii ñu nekk ci rang yi di jaay. maa fi yoon ba gaa daw ci ginnaaw dégg yi kii satal ci li fa am ngi di jaay. lan moo tax. yéen max bi koy seen jiit. bu leen bañ. baayu isa am ma joo. moo fi feeñ si àll. ka bongo ni duwana me rawan te ni ni duwana ne moo tax boo waxee rek ab dox la ngay jàpp dañuy xam ni mbiru boo amoon xel ki ngay dikkal rek naa li di jaar ki ngay xaw di jaar war a bari man laaj la yow mii boo fi bàyyi di di bàyyi. lii sànq bi ndax neexul jiitaloo. bàyyi lay kenn du ànd moom di am gàcc. sunu bàyyi lay doo ànd moom di am gàcc. te képp kuy leerloo ci leneen lu suy naan moom ci lëndëm suuf fokkul biyaa bi doonu ko ku nañu dem ci si kàss yi nañu dem ci bu mu ci mën di doon ndax loo ci mën a gis ànd ak yi naa la démb ne këri diine day rek maam bàyyi day xale ma nekk loolu li bàyyi moo tax ku ci wax rek li nga xam ne naa leen maa ko amalee xëy na maa lii yées maa sama nangam ak nangam moom tamit mu ngi toog fi mu toog rek parce que boo tudd woon am turam doo waaw bu jéem a tudd juróom de maa ko kii maa ko kii maa naan ko dañu lay wax la ngeen bàyyi ka fekk wax mooy boobu nga xool nga xam ne doo dara bàyyi ka bi rek bu ci dugal bàyyi laay waxal sa may bopp rek nga xool di nga xam ne doo dara parce que kii kenn man tarawanteeg moom kay fa tarxaa lu xeetal anbiya yaa sama an maa tawalat asama balaa ngaa dab bàyyi lay fekkal yonente yi nga soog leen ko boo ma ne ci ñoom dara nga doo ko man dara ci bàyyi lay ay fatal am na liir bu dox sa diggag ñoom lam yusaabuuka fii ulaaka wa qad xaala sana minka duunahu sana gars yi bala ñoo dabbaay ay nañu ko jéem yonente kay fa tax nan ngay yéegi bay naan ñu naan tiim nga bàyyi day wala dégg nga bàyyi parce que am na lu tax ruqya am na loo xam ak andi yaa ko ñu ko yéeg dañ ñoo tax moo tax yaa sama an damaa yéemu borom balaa ko loolu su oowee lu am amul am xel yii moo tax yaa sama am yéemu naa ci yonent yoo xam ne maa dawalaka siiw na leen sama am beneen yoon dama yéemu ci kitim ñooñu ñii man ci loolu laa yéemu yii ku leen tiim ku tiim moo tiim Ibrahima ulul azmi nga tiim leen ponkal yooyu ki leen tiim yaa sama an maa dawalaka sama bala ngay jël sa bagga yi nga teg ci baggam suy naa ne wax ma ne rombal nii ji dana du xam ne lam mi saaw doo ñoom du yow parce que am na lu dox sa digg ak ñoom wala koy sëkkale bàyyi rek ay rey ay rey ay rey nga ñu def te toujours wax la bind laa ci bàyyi rek koo fi yaakaar ci réew mi kilifa mi ngi fi di jaay wala mu nekk ci organisation bi société

moo tax xamaa tas sos du gonge ila lul an daw li kat sey ak ak waaw ci la leen leer tey boo dem léegi bi gën a gàtt jënd ko mooy jigéen ak góor kër bi tamit ila an daw li yaa ami leer boobu mu doog a nekk da ngay dem ba Arabie Saoudite day toog laay naaj lan lañ koy laay la wala bàyyi la ngir li bàyyi lay def ci yow. moo mën a téye nit ñi ko defar ba tur wi pour seen naan moom nekk ci moom ak laay bu mu dem bu taxaw rek laay laay lañ ko doy wala bàyyi la man ni bala ngaa mën a jege say naan moom wala yow nga yaakaar ni sëriñ sëriñ mën naa jege say naan moom man ni na puus yonante nga déglu wax ji rek pour rek bokk ci kuréel te dafa la teel am wallaahi kuréel boobu nee na ci la yoon jaari Isaa di ñëw da ko jot dëgg man de naa leen gàmm ne yëpp dañ leen bàyyi ba ñu pare ma wax na lu tax na def pare courage bi rek bu dee ñu ngi seetaan ne la ci def courage waaye yaay kenn ba tax kenn du ko jege wa an nañu daan naan fi makaanin lati ahsanaa fi ko yàlla fekk kenn mënu ko fexe ba ko yàlla yóbbu la ko yàlla defal al Mustafa al Mukarram moom rek la yàlla invité ko kaay subhaana lazi asraa bi abdihi laylan min al masjidi al haram ila al masjidi al aqsa allazi baraknaa moo xam loolu moo la wasifi wasifi laylati lati kaanat lil muxtaar fiihaa alal Qur'aan wal istiwaa amul ay laa yamul maas yoo yaay borom bi la mu leeral nga juróom diine ku leen utal bay maas kon mu ñaan yeneen la gub sëriñ mënu benn ba dig maas ñi jàngul bindul te jëfe wuli téere di jëf li seen yoon yaa moom juróom ñaari diiwaan xaw su man di ngay leer dee suñu jéggi yow la yaa leen man ca diiwaanoo kon yéen ñi kaay leen nu waxtaan fii te kay bàyyi baa sëñ ci sooda te noon am boon wolof min toloo ci wax arabul bi ay kañ sëriñ di soodaanoo waaye yónneen fu mu mas a feeñ yéefal ya bañ ka di noon ñatoon na ay kàddu ñoo ñaa koy wérante ak saa jëtee la gëm naan fa sam sam am ba tamit arfan min al baxri aw asfal min al biir yeneen tey sax dañ doon toog ci buntu néegam di xaar lu rot muy xool ah waaw mënul nekk man mi daa dëggale kenn dama laa ndil lii tegal la nga andil ma ko lii kii de gis nañ fi ay yonent di topp ci ginnaaw Seydina Ali wax loolu doyal salaatu wa salaam. daan nañ ko toogaani. ni ab tomb di toogaani araf. comme ba ñu tombal si ba tomb daan nañ ko toogaani comme ni nga xamante ni bii lan ngi doon dégg comme ni nga xamante ni ab masque noonu lay toppee ak araf mais yonente yi noonu lañ doon toppee seen araf. te nag ñu leen di bàyyi loo xel yàlla dafa ne yonent bi su ngeen ko gëmee di amatu ja'altukum anbiya su ngeen ko gëmee ma dégg leen yonent bi yéen yonent yi yéen yonent yi su ngeen ko gëmee ma dégg leen yonent waaye su ngeen ko gëmul ma dégg leen ay yonent ñoom yonent yi taxaw ne ko di loolu bëgg bay lay tax ne ko kii yoroo. ku mu jóg dem Dakar bu la nga nekk imam moom ndax dafa neex a tiitaroo. dafa neex a tiitaroo ci tur mais day dem nañu jël jaamu bosam day présenté kenn du la jàpp waaye bu dul moom manqué dafa mel ni livre bu amul couverture feuille yi ci yàqu nañ leen gis. gars yi sax dañ naan laaj day day dafa ñàkk diine amul morom mbokk yi lu doon ngeen ko ciy bàyyi beneen ma sa gàccee bàyyi day dafa ma sa gàccee dëkk bi daa ma sa gàccee lëbu daa ma sa gàccee lislaam nañ ñu teel nii benn rek boo xam ne bàyyi day gaawaa parce que nii nag amul bi fi tubaab bi ñëwee bàyyi day gàccee lu lëbu xam nga bi fi sëriñ si ñëwee jóge ci kaw gi di ñëw fii bàyyi day gàccee lu am leen bu doon ku fi ñëw gëmee say naan naan sax ngeen gàcceel la waaye bàyyi lay masalu gàcceel la masalu gàcceel di ko yàlla yéen ndax bàyyi bi bàyyi lay la dem topp ko la oowu di ci lay sa bopp loolu daa ubbi ko la oowu yaa xaw ma naa ajibu daal yàlla ba àdduna bi yàq na ko sëñ adab waaye nag fa man lay daa yàlla lay sëriñ moom ci moo bu ñoo xawee biyu nee nañ wax ko الولد ولقد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ولا على لا bayira newul basil newul mi mara giri plan te amuñu si jaar te monte ak loolu jaaxal na wàll waxuma nag pour ñuy waare wala dogal dana gër jigéen jéppal ka lislaam waaw jii den la tiital comme xajjal الشمس منك مدير أسفلت عنه ليلة القدر هو خمني غاية ومسألة تو جليسه غروب الشمس من جاهلة bu di bu ma see toog rek daal di toog rek moom sa dinaa li bu ko daal di ne jàkk li ma xool jant bi buy jàll duñ ko yëg kii da laa kii neexul ci taw. ñun lan moo tax ne dañuy def ba seen fan. cofeel kii dañ dañuy ëmbal seen naan ma ci xool bi ñu koy xool. mais xaw ma na yëlaat yi jëmmi taa bi nekk ci moom. leer naa ñett bii wóor di nës nës bi am lu mel ni lu ñu ko jàppal fii ci fii am jubul mantoon te ñu fees tel sàkkar yàlla ci kaw ak suuf. bëj nga tey weex tàll la ci ñuy kub mu kaw rek dafay doon toog rek dafa nga xam ne kii toog jëmm ju fees dell laa ngay jël fees la waaye jógul ko ay jëmm ju fees dell laa toog waaye nag sa lee danoo biit dana ko damaa fi wax bëri ko bu deful dara moom moo xamee coowal bu mu romb ñoo xam ne bëri bu deful dara am de ñaan ko tubaab maa bàyyi mu jàmm nga bàyyi noonu bu ñuy tubaab moom moom waaye tubaab bi dafa mën a joxe baax ñun kay gàcce gi moo doon olof dégg mooy li ñu leen di dégg moo olof olof Kapaal olof sa sa téye vraiment olof ah, maanaam dégg moo olof ngir complexe ñun kay arab dañu dégg du gàcce ci ñun dégg ñu tubaab ci ñun làkk rek la waaye nag ñu laaj xam-xam demee ci xam-xam la parce que xam-xam moom kii dégg olof ak ki dégg yëpp ci xam ci tubaab ci ko ñu kon mm-hmm. lan ma ci complexe wala dañu naan day gis sax dañu mën a nit ñi dañu kenn waa dañu toog dañu koy tiitaloo tension non man tey sama tension tension nit ñi dara wallaahi boo déggee dafa amee rek am na problème. parce que am solo fu ne la lay dal ak kii bi da koy tiital boo nga xam ne moo tax. donc yi nañu noppalu wallaahi azim laaj naa leen ab laaj démb laaj naa leen ab laaj borom xam-xam dëgg nee naa leen nii bàyyi leen andal ngeen nañ ñu wax ndax mucjisaat wala irhaasaat la wala maamunaat la wala istidraaj wala kiraama nañ ñu wax ban la ci en tout cas am na lu mu def maam Bamba moom li mu def ñëpp xam nañ ni kiraama maam Bamba moom li mu def ñëpp ko xam nañ ni kiraama min an siraafu shay'an yuqaafu amman yaqaafu ba'da tijaani ndax lakal xawaare min seen xalaati laysa lisaani wala lijaani mu wax kon xayral baraaya zurta balaaya nisib ataaya rulka najaari parce que antal karim anal xadim ñaari dañ ciy kon def nañ mu fii katanaa moo tax amul kenn ku fi mën a jël mën ngaa melal na ko yonente gi mooy yonente ñi def ñëpp ay taalibe te sax ak ñoo sore ak sanga bari na ci dox wa sax bu mu xëy mu ko ni fas tamit nee na gën dimanche mamax di woote gars yi jiitoon ne suñu bokkul yemuñu àndal nga ni borom xam-xam yi dañuy wax lan su dee moom gisa rek xam nañ dañ leen xalaat de dañ leen tontu la comme ñu muy posé question bu dégg bëccëg man posé naa leen question dinaa leen wax mu ne dañu tàmbali wallaahi wax dañu bàyyi ba ñu bari ñu fekk te buñ ko fekkee duñ ko dindi wallaahi naa si tey jii dana limaam dara mënu kaa jege dara mënu kaa gàpp te wallaahi waa dëkk bi ñàkk ful la mhm. parce que fekk sëy bi naa yoon ku nekk a tiitaroo kat yi bàyyi di tiitaroo keneen amul kenn ku ngeen di diir di ko def fekk bu sëy naa jaamu bu gën a mag amul hmm. amul dafa am hmm. te bàyyi lay ni moo di mën a kan mooy jàkk hmm. te diine jàkk mooy la ko bàyyi loo mën te dugal ci jàkk rek ci moo tax ñu ne lu diine du teggi lu amul teggi na du diine mu ngi delluwaat seen festival Fala. tànk jullit araam ci ko ndax li ko bàyyi lay tere rek la arab di bañ fecc ab daal waaye kéw di xas ñaar kii nag laay andi leen la keneen bàyyi ngeen ko fi de uti ngeen leneen de mais bi ngeen ñëwee andi leen lu digal bu doon digal ne ko ñëw da ngeen andi lu gën sax li ma xam waaye da ngeen andi loo xamante ni dafa wàññeeku trop da ngeen fi bàyyi tiir ngeen ñëw andi ñaar ndax tel que sama ba sax ah wala ñu koy lijjanti bàyyi fi téeméer dem léegi ñu indi ay cent franc. amen dina téeméer béykat ma de bu doon def ay sax six cent sax dina yokku la sept cent dina yokku la waaye bi nga ñëwee dañ fee di cent téeméer mu des quatre cent parce que ñaan ne ba ñëw l'annuaire bi taa fekk mu ne salade nga ji naka moom rawe weeru. sax tàngal na ci

loolu mooy diine si loolu jënd benn bàyyi bi jënd ko ñaar ah ñu xam métti ñu xam jafe xam métti mbokk yi seen naari moom mooy Muhammad da neex naa diine bàyyi lay ku ñuy laax ku ñuy lëpp déedéet seen dinaa ni moom rek a neex a diine boobu ndax moo def ci réew mi loo xamante ni kenn ñëw wax fi lu kenn ñëw andi fi lu kenn mënu alayhi salaam ñu ngi bëgg bég ci moom di ko tiitaroo fu ñu toll am ci fierté ba biir kaaba dañ koy tiitaroo. kon daal dinaa si. waaw daal dinaa rek man dégg naa la. ñi ko joxul kii am naa. waaw naa naa tudd nga baaxul. tur bi nga jox baaxul. naar moom boo xam sawar lay def. wala boog naar moom buñ ko wax rek mooy ko mën a tàkk. daa ngi naar la. waaye olof baat yéeme la ñu ngi ko jëlee ci boole àll ba tax bàyyi leen ñi gars yi ñëw wax leen olof kon nag wax naa leen si naa leen wax laaj naa leen ci tax bari de te duma leen di leen laaj comme da ngeen am xam-xam yéen a jàng kon du leen du laajoon ngeen ñun jox nañ leen ay fekk léegi laaj nañu leen yéen ñoom loolu laa tax bu ñu bëgg rek waaw nañ jox preuve léegi yow jox ma preuve ci àndal géej bi wax ma la moo ko gisal la wala kiraama la wala moo xam yan xeet waaye wax la am xam-xam yoon fi bàyyi say yi moom di day gàcce la ndax saa yoo di iya, nga gis lu gën a yéeme lu gën a mag ay lay tegul quoi. Yàlla mën ngaa te amul dendandoo buñ koy dendeel balaa seen wax yi toujours wax leen yii ay sëriñ wax naa kenn as yi ku nekk bu ngeen dégg ci réew mi laa wax ak bu dul réew mi bu ngeen mën a dégg ci réew mi si jataay bi di jaar waaye as yi ñoo taxaw ñii di organiser awa ah sant Cheikh di la wàllu Cheikh Abdoulaye mm-hmm. te fekk ñuy kilifa gaa yàlla nee na bu ñu gisoon maam Cheikh Ahmed Tidiane ko nee na gaa yàlla yi ngeen di dégg bu ñu gisoon ne yàlla may gaa yi xaaral rabbana ma adrikna fekk yàlla ko yor woon dara ñii ñu ngi solo seen t-shirt noir rek di takki haut-parleur ñun ñu ngi dem daal di daal di ñu woy ndekete yow moo yor woon dara. macha allah di daal di wax nga demee ci waxtu ba ñii di kàttan ñii di naan mu ne ndekete yàlla moo yor woon dara te am na ñoo xam ne waxuma la ñoom mais seen doom bu ñu rek di rek di boole boo mën ñu mbas ndekete ñooñu ñu yaakaar seen biir bu ñooy takk fii nii yegg ci biir naan ndekete su rek jàpp seen jàpp moo xam. Kata mampu amani kumbali aman abdullah Wa itu liman antum billah Alihi akal Eh wallahi ko xam ne ñoo dëgg lañu Kon mbir maa ngi noonu laaj la woon rek dama doon laaj rek ndax ñoom ñoo amee woon ñoom ñoo féete woon ci camp bi commencé di laaj. jox leen ñu tegtal bi jox léegi yéen bari ngeen seen i laaj ñu jox leen ñu tegtal bi léegi yéen nag benn rek laa leen laaj. yéen boo leen ko laajee ñu xam benn la ci rek te biir dara bu ñu décortiquer andal kii kii dinañ xam kii mooy kan. waxuma ay tegtal yu ñuy wax de. àndal géej gi dañ ko jël teg ko te ñoom nañ xam ne bu ko defee bésu tàq xarit bés bi yonent yàlla Moussa xare géej Biz dünyanın yiyegir yönetiyorlar İsa. Biz de dünyanın yönetiyorlar yok. Biz mangiler yapınca sallan. Biz gomu, biz gomu la bagla yapıyoruz. Biz de böyle yapıyoruz. Na bola kaçı yavrum şey var. Alhamdulillah kadar ki aşura. Tam hali. La bagla def lo. La Musa def la mu defoon. Ibrahima def la mu def. Nuh def la mu def. Isa ku ne def la mu def. Ma ne bés boobu ci la bagla yooyu la ñuy waxtaan moo tax tamxarit ci réew mi feet kenn naa ci war a feet mooy Seydina Limaamu Laye kon